gis nga sama dënn bi boo ko xaroon tey ba bu pur nga ci fekk lenn rek may manqué mooy wax ju neex nga wax ak man. su ma mënoon a def nag loo xamante ni dina wàññi sa métit du ma xaar suba léegi def. si waxoon naa la affaire wu sëriñtu yooyu noonu yëpp nekkuma ci nga dugal ma si maa ngi nii am si gàcce léegi dem na ba su ma toggee sax kenn du nangoo lekk. fan yii xelam ay jënd tënk. c'est toi la parole. yow doom moo la yóbboon déglul bu baax li ma lay wax. bu subaa ngay compte. kon yow yaa yónni woon xale bu jigéen bi ngir mu yàq sama diggante ak jooju